عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق أن محمدا رسول الله waxal seede naa dëggal naa yàlla rek lañ war a jaamu ci dëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi yàlla yónni ci ñoom même moom même mut moom la yàlla yónni ci même mut direct bi direct bi gëm nga loolu ci sa xol waxal lan nga ban diine nga nekkoon waxal bu ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu allati alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu isa du yàlla yaaye maryama du yàlla yàlla yi du ñett yàlla kenn la mooy yàlla mi ñu war a jaamu nga loolu sa léegi bët bu set da nga julli juróomi julli tisbaar takkusaan timis gee suba nangu nga at mu jot da nga or weer muy weeru koor nangu nga boo amee alal yoo xam ne asaka war na ci nga denc ko atam lëmm wala nga bay da ci génne asaka nangu nga soo mënee dem màkk aji da nga dem benn yoon mooy farata ci sa dund li ci des ay naafila la nangu nga waaw mooy lislaam waxal alhamdulilah léegi jullit nga li nga war moo la war li ñu yaakaar moom nga yaakaar jullit ñooy sa mbokk boo leen mënee jëriñ ñoom ñëpp nga def ko boo ko mënul nga fexe ba bul lor xel dégg loolu man tur nga bëgg ci lislaam aminata waaw la Aminata bintu Wahab yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam عليك صلاة الله ثم السلام